xasida gi nga xam ni sëriñ bi def koo def tënke ko fi chahri ramadana aama al sasin mu wax ni sunu boroom tabaraka wa taala dafa bégal ñi ñi si kii woy xasida gi e, mbé mbé li googu mu leen bégal nag ci la woy xasida gi ngir jot li leen bégte moom yi allahu tabaraka wa زوار ناظم هذه القصيدة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان هاما ألساسين مي تيوارو كور أتوم 1331 تقعد دايدي تلا دفعون خسيدكي وحن سنو بروم بيقلنا نيو دي زياريسي كي وي خسيدكي تيوارو وركور بيكتما مسلين توبا جبت لنكو من تعمل خسيدكي فاز الذين حافظوا على صيام shahrin bihi ughliqa baabun lil iyam mu ni euh, ñi nga xam ni wattu nañu wattu nañu di woor weeru koor texe nañu ndax weer la woo xam ni dañ ciy tëj bépp buntu ayib bépp bunt bu war a mën a indil nit ki ayib dañ koy tëj ci weer woowu kon ak texe ñeel na ñi nga xam ni wattu nañu weer woowu ci woor ko dal jey tek ni yarawna afdal futur fi al lxubuur danañ gis ngeen ji ndogo buñ duggé ci seni bamél wa fi al qiyamati ak buñ démé ba ca bisu taxawaay ba danañ fa gis ngeen ji ndogo min al muhni al kabir lu baye ko ci yàlla mi aji womal yàlla mi aji rée teg te ni shahida xaaliqul wara lissaa'imin fi ramadana bi ridaahu lqaa'imin wax na ne suñ borom day seereel na ñi woor weeru koor di taxaw guddi yi na leen ngërëmam nga xam ni kon euh, fonk bëccëg yi di ko woor te guddi yi loo ci mën nga taxaw ko euh, ginnaaw sunu boroom seeral ne ñi koy def ngërëmam te ngërëmul yàlla mooy li gën a rëy ci lu ab jullit war a sàkku ndax wa ridwaanu minallaahi akbar la alxuraan wax mu saxal ne mbooleem ñi nga xam danañ woor weer bi di taxaw guddi yi sunu boroom seeral ne leen ngërëmam kon loolu ba tey wenn bayit la boo xam ne war nañ ca jànge ak góor lu ci biir weeru koor ndax ngërëmul yàlla lool yi yàlla saxal ni ñoo ñi ko fa bàyyil ñu mu boole nu ca yàlla nu ci yàlla defal kàttan mm, ci barke Cheikh Xadim mu teg ci ni xibaatuhum inda al ilahi waafira naalul muna fi darajaat al axira mu wax ni seeni may di lu rëy lay doon lu baree bari lay doon fa yàlla danañ am seeni mébét yiñ mébétoon ci àdduna yëpp yët ànd ak daraja al axira rudda li xayrihim xasaabu naari mboolem ñoom ñooñu di góorgóorlu di woor weeru koor wi sunu boroom dana leen sori lal mbugarum sawara te duñ ko jëndee ab dërëm baa ñu ko jëndee ab dinar rafaahum bi ramadan rafiu yàlla mi aji yëkkatee moo yëkkati jullit yi woor weeru koor ci biir weeru ci weeru koor nafaahum bi salawaati nafiu dana leen jariñ julli ya ñu julli ci biir wooru koor wi sunu boroom dana leen ca jariñ jariñ li gën a màgg maddalahum mun an nufuusi munan nufusil baqi mun yalla mi aji des dana len jox lepp lu ay bakkan dan mébét zul aradina sabin wa tibaqi te yalla di aji des moy borom juróom-ñaari suuf moy borom juróom-ñaari asmaan diyafatul baqi ladal jinani tamhu ana assawmi bimtinaani mu ni ga sunu borom di ganale eh, ay jaamam ca aljanna di dana far cionab koor ba nit daan ajru alladi maa indahu laa yanfadu munu yoolub yàlla mi nga xam ni la ne fa moom du jax mukk ajrun kabirun yool bu réerée la boo xam ni maataraahu nafadu ak jeex du ko gaar nafahu siyaami shahri fi daarayni yakfiikumul aarayni wa naarayni mu ne njariñul weer woor weeru koor ci àdduna ak alaxira dana leen fegal ñaari gàcce yi muy gàcce gi àdduna ak alaxira dana leen fegal it ñaari sawara yi muy sawara àdduna ak alaxira تكني عبدتم الله الكريم الأكرم بخير شهر خد يقول الكرم جامو ген يالا ميغا خامني كو تاد لا موي كي غنا تاد جامو ген كو تي نغن جي وير و خامني دا لين وماتال تراغا الى سواكم تنتهي النيران كون نغن گم نغن ام يقين تي ني سوار مام فنن لي جم فودل تي يين نيغا خامني جافانو ген تي دي وير وير كيو يوم القيامه كذا الخسار نكا نون كوي بيرت ياي بيرت واي يين ني ساخالون وير وير كور تسلل كو yéen perte moom mucc ngeen ci malektu mun nu foo safin nahaari yàlla dimbale na leen ba moom ngeen seeni bakkan ci bëccëg yi waaye nag yan xooli xayrikum daw intihaari ñi nga xam ne dañoo jóg ngir gëdd ku dég ku ci aw yoon yi feneen lay jublu fu dul ci yéen ñi nga xam ne saxaloon ngeen woor weeru koor abwaabu jannati naim futtihat li saa'imina wax na ne bunti na naim ubbil nañu ko ñi doon woor والجميع انفتحت بولم بنت عجني أبكن نيرنيني لكم لدى الفطور واللقاء يا قومي فرحتان بالتقاء يين سموندك أم جن ناري بكت بكت من بوين دوك بوين دوك دنين دجاج موم من بكت ما تدسنك بوين دمي بدجاج سن بروم دنين دجاج موم waaye sa taclamuuna anna rabbakum karim dangeen xam nag ne seen borom day ku tedd la wa anna indahu ujuuran la karim dangeen amna yol yudul jahmuk jax mukk ay pay yo xam du jax mukk ala shahri siyam sant ngeen seen borom ci wor weeru ko satadkhuluna jannatan duna ayyam da ngeen al janna ci lu ben ayib kon khasida gi serigne touba daf ko begalé ñi ko daan siyaare si ci wéru koor ak ñi ko si wut sax ci jullit yi goor yi ak yu jigéen yi ñëpp mu boole leen bégal leen ci mbégte yooyu nga xam ne sunu borom dig na ko képp ku fonk weeru koor farlu ci di ko woor ma daaneele ko waxtaan ngir bëgg ñu def ko mu di sunub yóbbal ci jafandu ci weer wi te fonk ko te warmaal ko te réyal ko su ni sëñ bay jaxate waxe nag muñ ku muñ ku muñul doo ko man kooree njariñ moo di aw yiw waaye kenn du ko muñ ku dul ku gëm yàlla gëm yonen ba seenu ca pay yàlla yàlla boole ci ñi ko gëm ngëm gu dëggu yàlla yàlla boole ci ñi gëm yonente bi ngëm gu dëggu yàlla yàlla boole ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi nangu seenu taalibe wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa